mbokk yi kañ la ñuy delloo yàlla vraiment njukkal kañ la ñuy tuub dellu ci borom bi subhanahu wa taala lan moo tax ñu yab borom bi subhanahu wa yan lan moo tax ñu yab yàlla lan moo tax du ñu jël exemple du ñu waaru ci ñu nekkoon ak ñun doon lekk ak ñun doon naan ak ñun doon foow ak ñun doon génn ak ñun doon tukki ak ñun dund ak ñun tey ñooñu anañu tey ñoo ñu ngi ci suuf suul nañ leen lan moo tax duñu waaru te suba ñu nit fa la ñuy mujj subhanallah ñun rek ak lan fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara loo def ci lu baax lu mu tuut tuut ak loo def ci lu bon lu mu tuut tuut di ko fa fekk sa jëf rek moom moo la fay njariñ nit bu deewee ñett a koy topp njabootam fameem ay xaritam waaye kenn du des ak yow bàmmeel alal ji ci ginnaaw yëre yeeg lépp ci ginnaaw puukare beeg lépp ci ginnaaw ak sa jëf sa jëf rek ay des ak yow mbokk yi nañu tuub gaaw dellu ci yàlla borom bi subhanahu wa taala du morom borom la yàlla dafa teral doomu aadam waaye tey ñun ñu wàccee suñu bopp ci lan mooy bañ a yëkkati yàlla jox ko gëddëm waaye fàtte borom bi subhanahu wa taala fàtte bés pénc waaye ku ci nekk yàlla dina la àtte yow rek te kenn du intervenir yàlla na yàlla yërëm ñi